salaam ak dañoo sant yàlla rek nag waaw ndax suñu fii sonn nañ sonn ñu soo seetee balaa ngay dem Dakar day métti lool te dëkk bi ku ne méttiwul rek waxoo li am dañoo sant yàlla fii nag ñu ñëpp fi ne muy séeréer muy joolaa ñëpp ñu ngi ci jàmm li ñu sonnal mooy ndox mi amuñu place boo xam ne ndox mi day dem war a ñëw fii pont baa ngi nii ñun ñëpp loolu lañu yaakaar suñ ci toogee sant nañ yàlla am nañ suñu dispensaire waaye manqué nañ ay garab yaa ngi dégg suñ fa